Euh, tension donne fièvre feebar fièvre yi gëna law ci réew mi euh, bo jëlé euh, adulte yi nga xamné ñu ngi dëkk fi ci Sénégal ñett yoo ci gis kenn ki amé na tension euh, waaye du loolu rek parce que ni mu bëree noonu la grave tamit parce que boo seetee feebar yu bëri euh, feebar yu mel ni AVC feebar yu mel ni maladie rénale maanaam feebaru roño boo nee lu mel ni insuffisance cardiaque wala crise cardiaque yooyu yëpp mën nañu jàpp ne hypertension mooy li njëkk ci li koy indi ci ci ci réew mi donc hypertension bëri na graaw na mais hypertension bi malheureusement euh, ni ñu ko fajee ak ni ñu ko contrôler ba tey des na parce que mën nañu jàpp ne

Touba bokk na ci réew yi nga xam ne fa la tension bi gën a ëppee doole mais du sax euh, du rek euh, ëpp doole dafa doon loo xam ne ay tension hypertension yu sévère la ay tension yoo xam ne yi dafay graw parce que complication yu muy ñu ñuy gis euh, doon ay complication souvent dafay xaw a jéggi dayo donc moo tax dañoo war a fagaru bu baax a baax a baax te tàmbale fii ci dëkk bi